ñun ñëpp ñu dem ci centre de ci banque de sang yi maye deret balaa koor gee ñëw loolu yéen sëriñ daara yi bu leen ci kenn man nañu dem ñun ñëpp dem maye ji deret ngir ñi ñu bokkal réew ñu mën laa jox suñu deret xam naa kon dañuy dugal rek sëri sëriñ seex Thioro am na mbokk moo xam ne nee na jëfe na ndigal ba pare xam naa dañuy dugal rek sëriñ Cheikh Thioro pour deux minutes Serigne Cheikh ñaa ngi war a wax ci turu daara yi na waajal Serigne Cheikh tafadal eh, gay takbir takbir gaynde Mbàkke takbir gaynde Mbàkke Baye Omar jërëjëf tey samay kàddu mënoon naa ñàkk sax waaye fi ma toog sama xol dafa sedd ba mënumaa ñàkk yëkkati ay kàddu samay kàddu nag ci kenn la jëm muy président Ousmane Sonko du ma ko ñaanal yàlla jox ko réew mi ndax xam naa ne yàlla jox na ko pare. dina teg dossier yii mu yëkkati ko jëmale ko ci kaw Ousmane Sonko dina ko teg suuf ndax sëriñ daara yi ku jàpp ne jàng alxuraan rek leen projet bi jaral di ñaan Ousmane Sonko yaa ngi nax sa bopp man mi dëkk Touba xam naa ci dara. wallaahi laxasim heure bu ñu wootee manifestation dinaa xam ñu dénkaani seen daara ne day ñëw pour xeex bu ñu paree delluwaat ci daara xam naa ci ay junni junni sëriñ daara. kon su ma nee Macky la amul information loolu dëgg la sëriñ daara yi nag yàgg nañoo def politique ak waa daara mais dañ daan jàppale nit ba mu egg ca kaw woor leen man mii bokk ci yéen day gis ngeen bi yàlla dogalee élection législative yi jot dugal na ma ci liste yëmu ca bi eggee ba ci ba ci bureau assemblée nationale bi man mii di wax ak yéen man mu xew bi mii lay jël def ma vice président assemblée nationale vice président groupe parlementaire yow askan kon kii ku waa daara la beneen bi ci toppaat musta toog ci ab sëriñ di sàkku ci moom pour mu jàppale ko ci wàllu politique kum toog danaan la li ngeen fi ngeen toog ñëpp ngeen fi toogal damay ñëw ngir xamle sama bopp kon kii politique wul mais waa diine ñoo dem ba xam ne kii la war a jàppale pour mu jubbanti réew mi ñu teg seen xar tànk tubay ne dañ koy jàppale beneen bi ci toppaat li sañ canama bay wax laay waxaat léegi Ousmane Sonko ku dëng mënut ànd ak moom Ousmane Sonko ku du lekk alal ju leew mënut a ànd ak moom koo gis mu jubati mooy contre Ousmane Sonko ku jub ko contre wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf Serigne Cheikh coro Mbacké gaynde Mbacké moom it doon donga bu am taxawaay ci wetu président Ousmane Sonko euh, Serigne ba Serigne Mbacké Gueye moom imam Cheikh Awa Balla Gueye waxoon naa ko léegi lii ñuy def it bëgguñu woon Serigne moo duggee parcelle umpule ko kon dañuy jox Serigne Cheikh Niang mu wax ci turu daara yi Serigne Cheikh bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara jataay bi mi ngi gudd euh, ki waroon jël kàddu gi sax mooy sunu mbokk mi di sëriñ Jili ñaŋ euh, xaadimul Qur'an sëriñ Jili Mbay euh, liñ fi wax li mbokk mi daanale honorable député Cheikh Thioro Mbacké muy projet bii ñun ñi nga xam ne ñooy ay niti daara souvent bu ñuy jox dara daara imaam Muhsin Diop bu ndar ku laajte di nga xam ne ku wattu alquran moo tànn beneen bi ci topp dañuy déglu discours am toujours mu naan bàyyi leen xel surtout yenn jeunes yi waa boor bee bu ñuy wax dañ naan day xiirtal jeunes yi xamuñ ne li ñuy wax waxi alquran la seydina ibrahima alayhi salaam jeune la woon qaalu sami'na fatan yuqaalu lahu ibrahim moo tax réew jeune lañ koy dénk bu jub ashaabul kahfi jàng na zidnahum huda donc kon dafa am loo xam ne kenn ku nekk ci ñun man mii di wax ak yéen bari na ci sëriñu daara yoo xam ne kenn woowu leen ne leen kaay dugg Pastef ñun dañoo tëb rek daanu Pastef xam nga lu tax ñu tëb daanu passif dafa am lu doon nelaw ci ñun ñuy jàng histoire ñu ñuy gënumaa bëgg projet moo tax keroog ba mu taxaw fee def déclaration daan ne sénégalais yi projet baa ngi noonu man de nee naa ko a gën a gore bu ci nit naree faatu naa la jiitu ma faatu te xam naa maa ci gën a néew doole ci ñu koy wax donc kon nañu xamaat suñu bopp xam suñu taxawaay wax ji gudd na maa ngi daanelee ci liggéey bii moo am solo liggéey bii modaab bii wax kese ak tàcc ko def de ñett a koy def génnee leen cotisation yi ñuy cotiser man nag moon kaab laa bokkoon waaye tey nag xam naa ne damay daal dem ca daara ja rek ndax kuy tëgg moom sa waa sa kuy wàlliyaan sa kër bàyyi daa tëggut waa daara woote nañu yéen waa moon kaab da ngeen may perte donc kon nañuy cotiser nañuy cotiser ñaan gi baax na lool waaye bu wàcc terrain bi jotee nañu sol blouson yi takk daal yi wàcc ci terrain bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëriñ Cheikh Niang jërëjëf sëriñ Cheikh ña ngi doon jël kàddu ci turu daara yi dinañ jox nag imaam Aliou Koli mu jël kàddu ci turu imaam Fansou Bodian Bignona ak boolem ulama nga xamante ne ñoo la Casamance ak li ko wër kon imaam Ali am nga 3 minutes bismillah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 waa akiri daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di sant bu baax di rafetu seen taxawaay waa kër suñu maam Ahmed Bamba ñu ngi leen di sant waa kër maam Laay waa kër Xaaji Malik waa kër ahli kunti waa kër Baye ñaas waa kër Funé ba ci ba ñu ngi leen di sant di leen di nuyu mbooloo mi alhamdulilah rabbil ñu ngi sant suñu borom taxaw fii ci ono fii ci senegal ndax ñoo bokk lu ne ci li nga xamee ne lu taxoon ñu ñëw fii dañu ñëw fii ngir dara taxul burul yàlla rek benn kado bi nga xamee ne ñëpp li nga xamee ne lu ñu xalaat lu ñu mbébét suñu xol ñu ngi koy def zaahir ak baatin yàlla na yalla nanguñu ko yàlla dimbal ñu ci li mu musale firawna ci Muusa yàlla na yalla dimbal ñu ci loolu kon kaddu bi comme xalifa yi ñu ngi fii mais ñu ngi leen di sant bu baax di leen di wax ne fi ngeen ni nekk seen tànk foofu la ñun tamit foofu la ñu nekk bokk na ak yéen salaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakaatuhu jërëjëf Euh, moom particularité bi am ci moom mooy tey ci suba laa koy soog a jot mu fekk ci ay yitte waaye moom it li